mujj bi dina dina dina mujj jul problème parce que bu nekkee benn mbir la ñëpp ànd di ko defandoo dina xaw a doy waar. d'accord xam nga entrepreneuriat dafa diversifié wu boo déggee kii ne entrepreneur rek c'est parce qu'il évolue dans un domaine donc état moo war a encadrer yi nga xam ne moom la femme yi war a mën a prouver parce que tey intellectuels yi li ñuy wax la digitalisation ñu ci ciy jouer rôle am solo jigéen ñi comme le programme 2FA dafa appart part sur différentes filières dafa am partie bu am solo boo xamante dañ ko teg muy la digitalisation nit ki nga xam ni léegi dafay dafay dafay jaay produit wala dafay exposer produit daf dañ ko bay may libre champ ñu teg benn plateforme bu tudd jottali jottali non seulement dañuy forme femme bi ci leneen lu bokkul ak transformation yi. ba pare comme comme lan. comme comme informatique. dañ lay former comme li ñuy wax les toutes les réseaux filières digitalisation donc le commerce et cetera donc comme li ngay wax léegi nii réseau bu nar a saturé lay doon. Mhm. au fur et à mesure bu ñu diversifier wu suñuy activité mhm. mais maanaam man je dis que le marché local doyul sax pour la transformation. Mhm. surtout bu ñu ko encadré. bu ñu ko encadré xaajul bay doy parce que la majeure partie des femmes yi nga xam ne ñu ngi def transformation. bu fekkee 100 cent la je dis que 45 pour cent bi dañuy manqué de moyens ba bu ñu ko defee une année deuxième année bi dañuy arrêté seen production. parce que mhm. du ñu am assez de matériel assez de financement pour mun ko def. alors que loolu ñuy transformer doyul sax pour Sénégal waxuma la ak exportation bi. Mhm. donc je pense pas que pour l'instant marché boobu nekk na marché bu saturé buy tax ñu mun ci taxaw am si saytu li ma ci gën a xalaat mooy ñu gën ko renforcer. gën ko normaliser gën a jàppale femmes yi sur des formation boo xamante ni c'est de haute qualité sur des formation professionnelles accompagner leen ak de technique de nouvelle génération yoo xamante ni ñoom loolu ñuy def dina gën a mën a yaxan man loolu laa gis mais gisuma ni secteur bi c'est secteur boo xamante ni dafa de d'autant plus que ñii bu ñu nekkee ci transformation céréale locale bi ñii ñu ngi ci eau de ñii ñu ngi ci savon ñii ñu ngi ci ci ci ci entrepreneuriat ci leneen alphabétisation bi y compris léegi nag bu ñu demee ba boole ci informatique boole ci digitalisation boole ci leneen ak leneen perspective bi c'est à l'état de nous accompagner pour ñu gën a mën a yokk suñu bon comme euh,